سيق برام جزاك الله فردوسي قديم سيق برام كولك لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله برهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكرنا إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مام أسجان قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله salaamaaleykum wa rahmatulah yaay ba ñu lay nuyu bu baax di la dalal ci Sénégo. ñu leen di fay yéen itam di leen dalal ci bés bu barke bi ci dëkk Mawlana Cheikh Ibrahim ci bés bu màgg bi di bési sang bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam. lan ngay dolli ci zikkar bu daw yaram bi nga xam ne ne <laughs> ñi zikkar nañ ko fi. xanaa di sant yàlla bu baax rek di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa di jottaliku ci Mawlana Cheikh Ibrahima suñ waajur suñ sëriñ nga xam ne lii yëpp moo tax nag moo ñu teg ci yoon wi yëpp moo jëmbat ci suñ xol yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko doon def ci dëkk bi ñu di ko roy ba ba fii toll ni ñu gis ni aussi saa ñu wootee gàmmu rek fépp fu waaye nekk ci àdduna bi day ñëw amul nit ku weex amul nit ku ñuul comme nuñ koy waxee euh, bay international tey bu gàmmu jotee ngeen gis foule bi yëpp immense mu euh, Kaolack nekk am benn effervescence lan ngeen ban yëg-yëg ngeen di am. sant yàlla bu baax rek julli ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam xam ne loolu yëpp liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim la ndax moom moo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg koo xam ne xamuñ fu mu commencé xamuñ fu mu em te gàmm itam moo ko doon def ci préparation bi ci dëkk bi moom kenn moo daan def yëpp weer wu tere woon muy pentir dëkk bi di takk làmp yi ci koñ bu nekk di ray ay nag di ray ay xar di ray ay gëléem di def lu nekk ndokkeel boppam ci weer wi ndax weeram la ba ay soppeem yu nekk ci àddina bi yëpp di jugee fu nekk ci àddina bi di ko fekkali si bés bi ndax ni mu réyee woon ci moom ba gannaawam tamit loolu moo continuer rek ay doomam di ko doxal ak ay xalifaam ba fii ñu toll nii ci loolu rek lañ nekk moo ko jëmbat daal ci xol yi. yàgg teg na ci yaram teg na ci xam-xam ay doomam yu jigéen ndax yu góor alxuraan moom ay doomam yu jigéen yi te doom yi dara tam yëpp rek doom yi rox ci lañ bokk bu góor ñi bindee jigéen ñi bind buñ taree ñu tari buñ mokkalee ñu mokkal loolu moo doom la jëmbat ci moom ba léegi loolu nag moo tax ba léegi rek jéem a teg suñu jàng foofu di góorgóorlu jàng alxuraan di ko jàngale yare ci bi di joxe tarixa bi moo wax ne bu jigéen ñi toog rek dañ rek rek boobu ñu góor ñaaw loolu la ñu ci loolu lañ ci jeunes yi de loolu. waaw yëpp ci liggéeyam la war ndax moom moo waxoon na fii ci jumaa ji sax ne xale yu ndaw yi képp ku ci am xam-xam rek dañ ko ubbil ko mu wax moom gisul ne at ay at yu ndaw dana dana tënk xale ba du mën a wax Cheikh Ibrahima moo yar njabootam ci loolu moo tax ko léegi rek di wax rek ñu gën a góorgóorlu soppe Cheikh Ibrahima yi ak jullit yi yëpp di aw ci yoon nga xam ne Cheikh Ibrahima yi foofu la doon amal jublu ci yàlla surtout jigéen ñi ñu di leen dénk seen coxaar bu jiw seen wax bu jiw comme ni ko Cheikh Ibrahima bëggoon na ko dénk jamono bi gëstu xam-xam ci boor bu nekk jigéen kat yàlla moo ko njëkk a sant loolu ndax am xam ne jigéen ko toog jigéen ñi ci jamono yi àgg sax rawatina jamono bi nga xam ne jigéen toog ñu leen ko dénk rek te góor boobu comme ni ñu ko Cheikh Bara dénkee woon rek rëgg rëgg loolu te suñu doom yi rëgg rëgg loolu yàlla moo la sañ si waaw war ñu teg seen tànk ci wut xam-xam rek am na ko teg suñu tànk ko teg ci jaamu yàlla ak wut bu baax rek dañ ko teg ñu tamit Cheikh Bara loolu lañ dénk bés bi bés yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam sibit bu nekk bés bi war na koo neex ci xolam ci yëppam ndax sang bi amal li am yëpp ci bés bi lañ ko parce que nga xam ne moo doon nañu ndax lépp lu am rek ci bés bi lañu ko yàlla mayal kon lu sant ci yàlla bu baax di gën a rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour sàmm lépp lu baax yoo xam ne mën nañ ko wala mën nañ ko wala pare bu màgg na ko sàmm te alayhi salaatu wa salaam comme ni ko suñu sëriñ daan def loolu ñu koy def ci ndoxteel rek ci tam jullit rek ñu leen ci ñaanal yàlla ñu leen nuyu yéen tam waa télévision sëriñ sëriñ ñu leen di nuyu ñëpp rafetlu seen taxawaay ndax yéen a ngi góorgóorlu bu baax jógee fa sori ñëw te bés bi rek indi leen ngeen di góorgóorlu ñu leen di ñaanal yàlla tànk yi ngeen ñëw ak yi ngeen di dellu yëpp yàlla defal leen ko ñaan yàlla yàlla yokk seen télévision bi ba àggale ko ci kaw seen jot moom tamit yàlla barkeel seen yàlla seen tànk Thank you. man maa ko taxawal sama nit sax dafay ko guttural ko xamoo ko waaw ma defaloon ko daay rek demalal ko a bés boo xam ne saa yu jotee ñu tànn benn borom xam ah, ne dañuy waxtaan ak ci seen diine ak ci seen ni war a nekkee ak ci seen njëriñ bëri ak eh, di am si ak Cheikh wala ñu bind ñaan yàlla ñaanal yàlla def ñu gën ci daara ba commencé nañu ci daara ji ñu koy baax te ñu koy taxawal ci Afrique ci réew yi fasantikoo ci Europe ci Amérique Angleterre ñun ci bëri daal taxawal ko ci lu bëri ba léegi am doom ñu koy def incha allah waaw kay yéen tamit ñu ngi jaajëfal di kontaan ci seen teewaay bi yokku leen ñaanal yàlla yokk leen ba ngeen yokk ci bàyyi di leen éviter itam ci journée menace jaaxle waaw ko jàppee da ngeen ko wax waaw naa ci 2023 bi rek incha allah bu taxawee incha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax seen liggéey itam rafet na trop maanaam ñëw ngeen gën a fekk ñu jàpp te bés bu màgg bi ma ko waral ñu tudd yàlla yàlla jox barkeel ak seen i toog seen